ñi yëngu ci wàllu kom ci Ziguinchor génn nañu wane seen naxar ci li nga xam ne moo xew ci commune bi ñeenti fan yoo xam ne toog nañu mënuñu génn xëy liggéey di ay manifestation yoo xam ne tax na ba tey ji mënuñu fexe ba am li ñuy yóbbu seen kër. ci njabootu mi lañ bokk na mu jégale mu jëlale mooy àdduna parce que ñu ngi fii xoolal ay borom njaboot lañu kenn joxuñu ñu ñoo ñëw daan suñu doole ñu ngi tëj suñu place. on ne peut pas travailler durant trois ou quatre jours comme sax lan la jox suñu njaboot yi naam xol yërmande fii on est tous pareils ñun ñëpp benn la ñu ñëpp benn la ñu naam xol yërmande Ousmane Sonko frère am la. Oh, lu mu sport la bi mooy naan depuis ñëpp moom liggéey bi doxul. ñu fii sag si ñu ñëw fajar gars yi ñu fekk gars yi génne suñu bagage yi du ñu liggéey toog noonu boo ay ngoon. amuñu lu ñu war a yóbbu kër gi loolu dafa métti ces populations. dimbale jigéen yi ñu mën a am lu ñuy lekk parce que fii foofu la ñuy lekk foofu la ñuy fayee suñu xale yi dem école man def pour man man sa maay fayal bés mu nekk sama doom yi pour ñu dem jàng fan yii yëpp demuñu école jàngiwuñu man tam fu mu nekk ne dama am problème pour génne dépense sama kër. ñii doon amal ay manifestation ñu rekk ci jàkkarloo ak force de défense ak sécurité yi Euh, soxna si moom dafa gis nii dañu daal di saccagé lépp loo xam ne amoon na ko ci ay bagage dañuy yàq suñu bagage ak sama moroom yëpp dañuy fekk nga muur nga teg ñu jël ko sànni ci mbedd mi bu doon bagage bu wow la ñu taal ko mu takk bagage bu tooy ñu sàndi ko dëgaat dëgaat ko yëpp yàq ko loolu dëgg la du dëgg du dëgg du yoon seen morom ndey rek ñoo fi toog njaboot du lekk. bu weesoo dawal Jakarta njënd ak njaay nekk na ab activité bu am solo fii ci diwaanu Ziguinchor ndax moo may tax ba jigéen ñi ak mën a am lu ñuy yóbboo seen kër mën ko toppatoo waaye bi manifestation yi doore tax na ba ñuy jànkonteel jafe-jafe ci loolu ngir mën a dundal seen njaboot